mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi dellu siwaat ci seen émission bu mag bi le grand débat ko amal fii ci seen site bu mag bi di Allo Dakar TV international ki ñuy dalal tey nag muy doomi josoon ñu koy wax Momar Touré te Diossone xam ngeen ni mi ngi nekk fële ci euh, département bu Foundiougne daanaka ci région bu Fatick euh, moom nag tey moom la ñu dalal monsieur Momar Touré ñu ngi lay nuyu Assane mang lay fay euh, di nuyu euh, directeur Allo Dakar suma Karit bu naa ma faati Assane Gawlo Mboup euh, président Moussa Cissé Lo hmm. vice président à l'Assemblée nationale nekk président CEDEAO hmm. parlementaire hmm. mais gis nañu dal xeer yi nga xam ne mi koy bare bari le président

ni mu xalaatee la waaye euh, li ma barki démb seetaan naa ko assemblée national li mu wax ministre agriculture loolu d'accord naa ci nañ xoolaat gerte ak nañ xoolaat niñ ko doxalee maanaam nag situation politique bi nga xam ne nii ci la ànd ak président Macky Sall euh, dama koy ñaan rek mu delloo si xadram delloo si dalam ndax ku ànd ak nit mun nga foog ne bu yàllay dogal ci sa yëngatu yow dogal boobu ci yow la doge fekk yàlla mooy dogale ni ñu mel yàlla bu bëggee dimbale nit day seet ñu ko neex mu boole leen ci ba yàlla bëggee jox makki sàll réew mi tànn na Moustapha Cissé la mu bokk ci liaat naay loolu suñ borom subhaanahu wa taala moo ko dogal léegi nag dogal boobu noonu su nit nit danay dem ba naago foog ne moo fal nit nit danay dem ba naago foog ne su la bàyyee nga daanu may ko ñaan ne Macky Sall li mu defal Sénégal yi ak lu baax li mu def na ànd ak président waaye na dimbale président ci ñi ànd ak moom te jàppale wuñ ko d'accord naa mu waxee ci côté boobu mais président ne bàyyi na ko na xam ne président rakkam la na ko uuf na ànd ak moom dégg nga na xam ne président de la république monsieur Macky Sall tey tey tey tey tey am na loxo bu gudd ci Sénégal fu ko teg fu dëgër fum ko téye foo xamante ni nii tey neexul bëma bokk la yeneen président yi parce que dafa jaar fi mu jaar xam na ñan ñoo mën a téye population bi xam na ñan ñoo mën a wax population bi te ñu jege na leen trop muy les maire de Sénégal ak les responsables politique ak les chef de religieux. ak les responsables ak les chefs religieux kooku moo doon euh, ci kàddu. ki nga xam ne mooy maire Johnson muy Momar Touré euh, ci si seen émission bu mag bii di euh, le grand débat fii ci Allo Dakar TV international lan ngay tàggoo ak su waa maire bi te bi ngay jël maire bi nag am na foo ko fekkoon na ah, mais fan nga ko indi nga tàggootee ci nga xam ne ñoo ñoo lay seetal. Ah, yow loolu da ci wax waaw maa ngi leen di Assane maa ngi leen di sant di leen gërëm su fekkee da nga bëgg ma wax. fi ma jëlee woon mairie bi loolu daanaka at mu ne ma wax ko fi bu bu leen neexee mën naa wax loolu lu ma sawar la waaw bu la neex it ngeen may ko rek ñu bàyyi ko ba ci kanam parce que am na yu ma denc waaw am na yu ma denc ngeen may ma ko ba ci kanam nga xam ne loolu da ñëw nga doxantu si foofu xam nga fi ma jëlee mairie bi ak fi ma ko indi su ma toogee ndakaaru da ko wax du saf da ngay ñëw nga jël koro nga dugg si biir askan ba su boobaa da xam kan mooy mamat nga dugg ci biir askan ba dugg ci biir dëkk bu la neex bu ma tàggu sax nga xool loolu moo gën a wér journaliste yi tamit parfois da leen descendre wàcc ci àll bi. lan ngay tàggoog nit ñi. waaw li may tàggoog nit ñi daal mooy nañ xam lan mooy Sénégal ñu bàyyi xel liy indi jàmm muy liggéey ak noppi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne man samatan najaa man su ma waxee ci média yi su ma waxee fii yéen a ma koy permettre kenn du ma gisaat feneen ci micro pare naa ci. yonent moo wax ne man samata najaa ku bëgg a mucc rek noppi Sénégal yi nañ wàññi wax ji te ñu liggéey Sénégal yi nañ wàññi wax ji te ñu ndakaaru gii tey laa fi ñëw te maa ngi ñibbi kenn ku ne fa nga nekk boo jàppee ne yaay président de la république ngay mair nga ngay autorité nga koo mën a doon soo xëyee demal sa bureau la nga war a def nga defal ko réew mi su boobaa coodu am waaw monsieur le maire nag maa ngi euh, tàggatoo maa ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le maire Momad Touré dégg nga li mu wax nee na sénégalais yi nañu bàyyi wax ji te liggéey xam naa boo loolu nag slogan président euh, Abdoulaye Wade la hmm. il faut travailler et toujours travailler. waaw bu bu yeboo de. waaye Macky Sall bi moo indi résultat. mi ngoog euh, tey nag suñu gan gi lañ doon dalal muy euh, maire Diorsone hmm. te wax na tey li nga xamante ni si moom la moo tax a jóg émission bi. Euh, ñuy sant bu baax ñi nga xamante ni ñu ngi jàpp ci émission bi commencé ko par le directeur général de Allo Dakar dem Allo Dakar TV international monsieur ma faati ñuy sant ki nga xam ne tey moo ñu génnee fii muy Moussa Ndiaye nekk tailleur nekk fële ci marché HLM di sant bu baax ñi nga xam ne dañ ciy jaay ñëpp dañ ciy jàpp ñëpp ku ci mel ne Adja Soxna May Ndiaye nekk chef d'entreprise moom it ci xalaatam ak idéem mi nga xam ne dañu koy jox ngir émission bi mën a dem ki leen ko doon présenté nag mooy Assane Gawlo Mbuub Euh, ki nekkoon ci caméra bi muy euh, Serigne Bara Seck euh, ñu leen di jox dig daje ak beneen invité ci seen émission bu mag bi ñëpp di xaar muy le grand débat kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon. mais xam nga ak carte gi jarut coow bu ci nit bu ci manifester am bu ci nit dee bu ci nit def dara bu gaañu óoloo seen bopp bu seen bopp buñ ko neen dañ dem troisième mandat nañ ko wax acce buñ xeex sax. Abdoulaye Wade xam nga defoon na ko ñu dóor ko nañ bàyyi Macky Sall mu bëreeyaat làmb ji bu ko bëree daan ko loolu rek la bu bëree làmb ji rek daan ko. xam naa buñ ko aaye géew bi buñ ko aaye mu bëree nañ ko bàyyi rek mu bëree ñoom kay comme comme sénégalais yi wax nañ ne sénégalais yi ñoo bañ mu nekk ko sénégalais yi duñ ko ko may mais na leeree ci carte yi rek nañ bàyyi ñu def. waaye monsieur le maire xam naa ni euh, jot gi temps bi moo moo moo moo moo moo moo lañ may signalé. Hmm. waaye ma am lu ma lay laaj xam nga fan yëpp dégg nga ñàkkum ndox mi nga xam ni am na. Hmm. Euh, dégg nga tam li nga xam ni. fu ñàkk ndox. waaw ndakaaru nag moom fan yëpp dafa amul ndox. Ah, man dëkkuma ndakaaru. Hmm. man àll ba ma dëkk. waaw muy commune Diossong. waaw. Euh, depuis 1960. Hmm. ba 1997 benn forage fa nekk. Hmm. dëkk yi ci des yëpp commune rurale bi mu yore woon cent quatre vingt quatre vingt dix huit villages plus dix amoo. découpage 2011 lañ ma dagg délégation spéciale 2000 ko bi ko daggee. Euh, ci la seen génn jaagaan barka génn ci amul fenn fu ci amul forage fii maa wax ak yow ci li ma laay wax na la li tax ma na la mu maa bëggal waa ji deuxième mandat troisième mandat man man ma mat juróomi forage fa ndox mi neex mètre kibbu bi fanweeri dërëm laay jar man ci sama commune ñeent fukki paan yu njit fanweeri dërëm loolu laay jar ñun dañoo naan nag yaag mbaam yi ñun yëguñ lu xew yow bi nga yor mairie ba benn forage. benn forage sa fa ne ci quatre-vingt-dix-huit village plus dix amoo laa la wax nag. actuellement nga yor ñaata ne nii ma yore cinq forage ci quarante et un yeneen ku yeneen yeneen yi daggee ci man jaagaan barka mu nga ak deux forage ñaseen mu nga ak trois forage ak ay piste kon jàpp nga ni daal yow soo ko fi nga nekk amul. amul ñàkkum ndox ñun ñun yëguñu lu xew de ñun kay ñun daal ñu ngi naan makki Sall yàlla na fi yàgg te wér. mais tu vois l'électrification. il faut faire doucement mais Sénégal du mais l'électrification, électrification courant bi. Sénélec. Hmm. visite euh, directeur général du hmm. Pape Pape nga gis ni Senelec am na ci trente pour cent ci nga xam ni mooy mooy mooy wàllu société boobu. Hmm. nga xam ni euh, barki dem ñu dem nañu aan dem nañu yaraax ndax loolu ci wàllu courant boobu. Hmm. ban gis-gis nga ci am ak li ñuy dégg courant yu coupé yëpp. ak visite boobu nga xam ne tey jii directeur général def na ko ci muy ministre bi muy euh, directeur général bu Senelec ban gis-gis nga am ci ci ci ci ci wàllu électrification bi. Eh, wàllu loolu itam maa ngi nuyu directeur général euh, Senelec muy Pape Demba Bitèye dëkk fële ca Kabatoki ca Saloum euh, maa ngi koy nuyu ak di rafetlu taxawaay ak engagement am di remercier président de la République ndax si campagne présidentielle bi. danaa bari nag lu ma ko tudd nga baal ma rek Assane. dafa ñëw sama commune ma teeru ko ma ne ko maa ngi 41 villages ñëpp am nañ ndox 100 pour cent mais ñaari village laa am yoo am électrification bëgg naa ci deuxième mandat bi ñu gis ci suñ bopp ci loolu noonu ci xam naa ne Pape Demba Bitèye mu jot na ay ndigalu président Pape Demba Bitèye yónnee na ma jox naa ko fii de fooy fooy bi nga xam ne ni ci la 41 villages yëpp nekk not jox nañ ma notification semaine bi passée ñëpp sociétés yi nga xam ne ñoo war a ñëw électrifier commune bi yëpp actuellement nii sax am na société bu départ ba sampale na huit villages ñu ngi en cours kon maa ngi remercier président la ma waxoon awma fu ma jaar ba jot ko dinaa ko bind lettre de remerciement wala ma wala ma organiser ko waaye maa ngi koy remercier ci la ma waxoon noonu naa ko danaa la woteel quatre-vingt-dix pour cent. woteel ko quatre-vingt-dix pour cent. la ma waxoon it ci bi def na ko affaire courant bi. Mhm. ñu ngi dégg yokk gi. ñun jot ci lañ soxla. gis nga réew mi. ñi de liggéey di dundee seen ñaq duñ coo président xam na àll bu fu ñu la juddoo xam na li xew gis nga fi mu lonk affaire bi foofu la. yaa ngi dégg. Euh, président Moustapha Sissolo, hmm. vice-président à l'Assemblée nationale que président CEDEAO hmm. parlementaire hmm. mais le président euh, actuel le président Macky Sall. le président Moustapha Siselo allié le commandant du président. Euh, Moustapha ci jàpp na ko ne nit kuy wax euh, ni mu xalaatee la waaye euh, li ma barki démb seetaan na ko assemblée national li mu wax ministre agriculture loolu d'accord naa ci nañ xoolaat gerte ak nañ xoolaat niñ ko doxalee maanaam nag situation politique bi nga xam ne nii ci la ànd ak président Macky Euh, dama koy ñaan rek mu delloo si xadram delloo si dalam ndax ku ànd ak nit mun nga foog ne bu yàllay dogal ci sa yëngatu yow dogal boobu ci yow la doge fekk yàlla mooy dogale ni ñu mel yàlla bu bëggee dimbale nit day seet ñu ko neex mu boole leen ci ba yàlla bëggee jox Macky Sall réew mi tànn na Moustapha Cissé mu bokk ci liyaat naa yi loolu suñ borom subhaanahu wa taala moo ko dogal léegi nag dogal boobu noonu su nit nit danay dem ba naago foog ne moo fal nit nit danay dem ba naago foog ne su la bàyyee nga daanu may ko ñaan ne Macky Sall li mu defal Sénégal yi ak lu baax li mu def na ànd ak président waaye na dimbale président ci ñi ànd ak moom teg jàppale wuñ ko d'accord naa mu waxee ci côté boobu mais président ne bàyyi na ko na xam ne président rakam la na ko uuf na ànd ak moom dégg nga na xam ne président de la république monsieur Macky Sall tey tey tey tey tey am na loxo bu gudd ci Sénégal fu ko teg fu dëgër fum mu ko téye foo xamante ni nii tey neexul bëmëx bokkul ak yeneen président yi parce que dafa jaar fi mu jaar xam na ñan ñoo mën a téye population bi xam na ñan ñoo mën a wax population bi te ñu jege na leen trop muy les maires de Sénégal ak les responsable politique ak les chefs de religieux. ak les responsables ak les chefs religieux kooku moo doon euh, ci kàddu. ki nga xam ne mooy maire Johnson muy Momar Touré euh, ci si seen émission bu mag bii di euh, le grand débat fii ci Allo Dakar TV international lan ngay tàggoo ak sa waa maire bi te bi ngay jël maire bi nag am na foo ko fekkoon ah, mais fan nga ko indi nga tàggatoo ci nga xam ne ñoo lay seetaan. ah yow loolu da nga wax waaw maa ngi leen di Assane maa ngi leen di sant di leen gërëm su fekkee da nga bëgg ma wax. fi ma jëlee woon miir bi loolu daanaka at mu ne ma wax ko fi bu bu leen neexee mën naa wax loolu lu ma sawar la waaw bu la neex it ngeen may ma ko rek ñu bàyyi ko ba ci kanam parce am na yu ma denc waaw am na yu ma denc ngeen may ma ko ba ci kanam nga xam ne loolu dangay ñëw nga doxantu si foofu xam nga fi ma jëlee mairie bi ak fi ma ko indi su ma toogee ndakaaru da ko wax du saf dangay ñëw nga jël koro nga dugg si biir askan ba su boobaa da xam kan mooy mamat nga dugg ci biir askan ba dugg ci biir dëkk bu la neex bu ma tàggu sax nga xool loolu moo gën a wér journaliste yi tamit parfois da leen descendre wàcc ci àll bi. lan ngay tàggoog nit ñi. waaw li may tàggoog nit ñi daal mooy nañ xam lan mooy senegal ñu bàyyi xel liy indi jàmm muy liggéey ak noppi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man sama tan najaa man su ma waxee ci média yi su ma waxee fii yéen a ma koy permettre kenn du ma gisaat feneen ci micro pare naa ci. yonentu moo wax ne man samatan na jaa ku bëgg a mucc rek noppi Sénégal yi nañ wàññi wax ji te ñu liggéey Sénégal yi nañ wàññi wax ji te ñu ndakaaru gii tey laa fi ñëw te maa ngi ñibbi kenn ku ne fa nga nekk boo jàppee ne yaay président de la république ngay maire nga ngay autorité nga koo mën a doon soo xëyee demal sa bureau la nga war a def nga defal ko réew mi su boobaa coow am waaw monsieur le maire nag maa ngi euh, tàggatoo maa ngi leen sant di leen gërëm monsieur le maire Momad Touré dégg nga li wax nee na sénégalais yi nañu bàyyi wax ji te liggéey xam naa boo loolu nag slogan président euh, Abdoulaye Wade la ah. hmm. il faut travailler et toujours travailler. waaw bu bu yeboo de. Ah. waaye Macky Sall bi moo indi résultat. mi ngoog euh, tey nag suñu gan gi lañ doon dalal muy euh, maire Diorsone. Hmm. te wax na tey li nga xamante ni si moom la moo tax a jóg émission bi. Euh, ñuy sant bu baax ñi nga xamante ni ñu ngi jàpp ci émission bi commencé ko par le directeur général de Allo Dakar dem Allo Dakar TV international monsieur ma faati ñuy sant ki nga xam ne tey moo ñu génnee fii muy Moussa Ndiaye nekk tailleur nekk fële ci marché HLM di sant bu baax ñi nga xam ne dañ ciy jaay ñëpp dañ ciy jàpp ñëpp ku ci mel ne Adja Soxna May Ndiaye nekk chef d'entreprise moom it ci xalaatam ak idéem yi nga xam ne dañu koy jox ngir émission bi mën a dem ki leen ko doon présenté nag mooy Assane Gawlo Mbuub Euh, ki nekkoon ci caméra bi muy euh, Serigne Bara sec euh, ñu leen di jox dig dajé ak benen invité ci sen émission bu mag bi ñëpp di xaar muy le grand débat kon jërë ngeen jëf ba benen yoon.